Euh, ci amérique li xew nag mooy euh, jumaa joo xam ne imam cheikh hasan euh, imam cheikh ahmad tidiane cissé mu ngi am ngan goo xam ne mu ngi koy def fii ci amérique réeléwu leen taayali mu nga woon jaamane allemagne wala mbok waa paris dem allemagne jógee ko allemagne dem ca digga diga mu di angleterre am jota bu am solo boo xam ne mu ngi fa doon def jamono jii nag ngi ci washington Euh, jumaa joo xam ne ci kanam tuuti euh, dinañ fi feeku sëriñ bi war koo dem jiite euh, fële ci Washington Baye Abdou àddina bi yëpp a lay seetaan ñu ngi fii live ci faydatu tijaaniya comme na nga ko xamee ci gàttal rek nga wax ñu lan moo nar a xew fii tey alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimu salihat hmm. wasalatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ughliqa walxaatimi lima sabaq ناصر حق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدره ومقدار العظيم مبوك جوليدي مبوك فايدة تيجانيا نيغي نوي كين كو نيك سا تور اك سا سانت آه، كين امبولو نيو تاي دانيو ام كان بو مات في سي واشنطن دي سي موي امام شيخ احمد تيجان علي سيسي مو نيو غانسي ورا جيتي جمعه جمعه بوغا خامني جوليت يي اوب في سي واشنطن دي سي فالا نو ورا جوليجي مبوك يي جوغي نان فو نيك في سي امريك waa Detroit ñu ngi nii taxaw waa Atlanta ñu ngi nii taxaw Philadelphia wa wa dëkk fu nekk nit ñi jóge nañ fa ñëw rek pour barkeelu si sëriñ bi ndax bu leen ni sëriñ bi ngi fi kon ganale bii nii ak jumaa ji dafa nekk jumaa bu mag si ñun bu nga xam ni lu ci waay rek na ba daf lu ci raw ñu ngi ñaanal sëriñ bi yàlla guddal fanam Samu. ko sàmm bépp jullit jàng ak jàngale rek lan fi nekkee fan yi ak eh, xidma di ñaan yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér jumaa ji nag dinañ ko julli ji ngoon dinañu taxawal xadara taxawal wasifa incha allah rabbi après programme bi dina continuer lu ci am rek ñu wax leen ko jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa jërëjëf Baye kon mbokk yi yéen a ko déggandoor euh, fii mooy euh, kër gi nga xam ne fii la imaam Cheikh Ahmad Tidiane Alioune Seye nekk dal euh, ci jamono ji ñooy wax ak yéen ci kanam tuuti rek ci kanam tuuti incha allahu sëriñ bi euh, dina fi war a jóge ko comme na ko Baye Abdou waxee euh, ñu dem ci jumaa ji jumaa joo xam ne mbokki américain yi euh, cëral ko cër bi pour mu jiite jumaa ji loolu lu war a mun a nekk la ndax koo xam ne yow lu toll ci ay ay juróom ñaari millions yi nit ay julit ci faydu bi yow yaay seen ilimaan kon soo ñëwee Washington nga xam ne fii mooy eh, ca digga digga bu ne Amérique rek fii mooy capitale Amérique mooy Washington DC eh, réeré wuñ ne bureau yi yëpp fii lañ nekk fii daal ci gàttal mooy capitale bi lii yëpp fi lay xewee eh, kon ci kanam tuuti incha allahu dinañ dem jumaa joo xam ne comme ni leen ko waxee imaam Cheikh Tidiane Alioune Cissé moo ko fas yéene jiite fii ci kanam tuuti ci Washington DC. Euh, fàttali leen ba tey rek Amérique comme ni ñu koy waxee toujours juróom fukki réew am na ñu ne juróom-ñaari euh, euh, fukki réew ak ñaar waaye li gën a déggu mooy juróom fukki réew ñoo wër taabul waxtaan di soo d'accord ci kàddu ñu sos ko def ko benn réew ñu tuddee ko United States of America fii nag mooy Washington DC fii mooy capital bi fa sëriñ bi war a dem jiite jumaa ji My brother, what's your name? Uh, Assalamu alaikum. I'm Ismail Shabazz. You have some words to say? Yes, we're happy that Sheikh Tajani is here. You know, he's a, it's an honor for him to be in our presence. So mm -hmm. we thank him for coming and the whole family from Senegal. Alhamdulillah. It's barakah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank Assalamu you. Alaikum. Shukran. La shukran wajib. sëñ bi. waaw ah, ah, sëñ maa ngi ziar. tur naka la. Ibrahima Cissé. dafa yow a filmer affaire bi de. waaw maa ngi foo bàyyee koo yow. man Sénégal. Dakar lan nga am pour wax. waaw c'est la première fois mu ñëw fii nii États-Unis hmm. te si loxo imam la jaar imam moo tax ma ñëw fii. kon yéen a ñëw. ànduñ ñëw moo ma jiitu na. Ah, waaw mais moo tax ma ñëw moo tax ma. nga fas ma yombal mbir yi ba ma ñëw fii daal man a def sama liggéey. waaw ah, loolu moom am nga ci bari nga ci morom ñu bari euh, seen ñëw fii dalee ko ca magam ja imam Hassan. radiyallahu taala anhu moom itam kon ñu ngi lay dalal ak jàmm Seydou Ousmane. loo am pour wax. barakallah just happy to be here. Mm-hmm. Wallahi, we happy to be here. Imam the uh, Fader. Um, we're getting ready to go to Juma now. I'm a little busy. They just sent go do <laughs> Olof something. Olof la buga nga wax ngir am nga soxna Medina te yang ko joge burka de ba rek waxal Olof. Tam wala xarma ñu xarma am am na ko mu ñu na legi xarma ñu. Jërëjëf. Ma ñu kon mbokk ni ñuy def rek dañuy terminer ba ci kanam euh, dinañ indil li fi euh, euh, Mohamed Detroit Mohamed you have some words yes Fadal bismillah we bless. yes we bless. we bless to be here with Imam Sheikh and um, that's yours or mine? It's mine. That's for iPhone. I have iPhone. I was trying to keep it. <laughs> oh, alhamdulillah. Uh, we blessed, alhamdulillah, to be here with Imam Sheikh. Um, it's amazing. You know, he hadn't been here in five years, and for us to be here underneath the Imam of the Fader is a barakah like never before. You know, I never would have thought that I would make it, and alhamdulillah, I was able to ride with my brother, Makumba. And you drove nine hours, right? I drove half. <laughs> we did 450, 450. you know, and we need one more person to do 450 for us, inshallah. Ah, ba tey mbokk yi comme nañ leen ko waxee fii mooy kër gi nga xam ne fii la imaam ah, Cheikh nekk ci jamono bi fii la dal kon eh, ñu jox leen rendez ba ci kanam tuuti rek dinañ dellusiwaat eh, indil leen génn gi nga xam ne imaam na ko génn fii ci kër gi. Euh, pour ñu dem ci jumaa ji nga xam ne moom la fas yéene jiite tey ci ajuma ji fii ci Washington ci capitale Amérique kon dinañ dellusiwaat ci kanam incha allah jërë ngeen di fàttali seen mbokk Macoumba Thiam nekk ci gannaaw caméra bi faydatu tijaaniya di leen indil mbir mi gannaaw kàttani yàlla subhanahu wa kon xam naa ci kanam tuuti dinañ dellusiwaat incha allah Assalamualaikum wa wabarakatuh. mbokk yi ñu ngi dellusiwaat di nuyuwaat beneen yoon ñu ngi taxaw fii am Cheikh Jéeri mi ngeen xam euh, sëñ Cheikh euh, ñu la nga wax euh, marhaban leen wax ngeen dal ak jàmm alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Thiam àddina bi yëpp a ngi lay seetaan ñu ngi direct ci fayda ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi ñu baaxee ñu nekk fii tey ci Washington DC ànd ak al Imamul fayda Cheikh Tidiane Aliou Cissé hmm. mu war a jiite tey juma ci the nations masjid masjid Muhammad bi nekk ci Washington dinaa wax rek ne taarix moo delloo si boppam ndax ñaari yoon ci année quatre-vingt yi imaam Hassan Ali Cissé jiite na jumaa foofu ci même juma bi euh, kon su fekkente ne tey en 2018 mhm. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé def fi ñëw war fi jiite conférence bu mag fii ci Washington DC ñu ganale ko pour mu jiite mbooloo mi loolu yaakaar naa ne euh, dooleeku la sant la waaye rek noonu la na mën a demee ndax euh, ku ne xam ne ne mooy imaamul fayda bi kon dëkk bu mu yëkk rek euh, imaam ba daal di soppeeku maamu teg ci moo xam ne bi ñuy tànn juróomi téeméer yi nit ñi gën a am yëg walla ñi gën a faale ci lislaam bi juróomi téeméer yooyu moom mooy fukkeel ak juróom-ñett loolu kon yaakaar naa ne dañoo delloo buum ci booy booy bi rek waaye kiñ ko teralee euh, euh, toogaayam fees na euh, chaise bi loolu daal laa ciy bëggoon a wax jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon imaam a ngi noonu di génn si mooy imaam génn si noonu incha allah pour ñu dem ci jumaa ji inşallah. I'm following you. You got the address? Right here. I'm following you. Give me the truck. You got it. Okay. You got it under the You got it under this car. Yeah? Yeah. Right here. Under this car. I got car, We don't, this car don't have it. Who's right? That's not, that's my father's shit. Alhamdulillah, mashallah. Allah, Allah, mashallah, mashallah, mashallah. kam kaay kon ñu leen ko waxee rek mbokk yi ci kanam tuuti rek euh, kanam tuuti rek incha allahu euh, imaam noonu départ pour dem ci jumaa ji kon ci kanam tuuti euh, dinañ leen indil xutba bi incha allah ci kanam dinañ dee suba